jaajëf gaan ndeysaan ngi noonu ma ngay nuyoo ma ngay yéeg ma ngay saafante xoolal ministre ni mu koy xoolee ministre ree ah Matar Ba le ministre des sports bés du tuuti borom lay tollool ndeysaan rëg-rëg a noonu nuyoo na nuyoo na ndeysaan nuyoo na ndeysaan saafante ministre oh rafet na ndeysaan rëg-rëg a noonu ndeysaan na ci làmb Caatu Samba Xoyaan baa ngi Demba Ngom Demba Ngor Demba Fari jigéen ama làmb na fay baax waaw suñu yu war a rek mooy que kon xam diggante ak Matar Ba ministre des mu nekk suma waay nekk ku baax doon kenn ci kon tey bésam bi suma bésa mbër yëpp la ba mu ñëwee ba léegi sport dafa yokk waaye sant gars yi di gërëm ma xoyaat baa ngi noonu. dem ba ngoom ak dem maa jigéen. ndeysaan ma ngay saafonte. ma ngay nuyoo. mbër bu am respect Eumeu Sène. ndeysaan ku lamb di bége. ndeysaan lamb ko bëgg. Eumeu Sène a ngi noonu. waaw maa lay fay bu baax. Issa foo ne sa combat yombul dëkk bi mënuñu laa gis amateur yi làmb yi nam ma Issa xamuñu ci waaw dinaa sant yàlla di nuyu Sénégal yëpp di nuyu monsieur le ministre di ko ñaanal maa war a teew fii ak waa làmb du si man loolu du si man man bëri naa ñëpp maa ngi war a xëy ànd xaar moo ba moo war a bëri naa ko bëre waaw. xale yi grand contre daa xew ci làmb. pare naa bu ñëw wasaare dañ laa bëgg a seet si wasaare la. ñëw am mbooloo ñëw maa ngi xaar. Boy Niang tey séeréer si da ñëw ñëpp jug te ñoom ku ne xam ne daanaka li ci ëpp seen champion la ñu supporté. min a séeréer la fu mu pire min a séeréer la fu mu pire doomu séeréer la waaw damay ñëw xam nga parce que Matar ba suñu père la ñu ñëw neexal bis bi xam nga jàppale ko bu baax loolu rek moo ñu indi waaw. Boy Niang Balla Gaye def na sorti barki dem li mu wax lépp dégg nga ko. du ma loolu moom la concerné. dafa dafa war a bëree ku mu war a loolu am na ci droit quoi koo xool ku mu mu war a bëree bëree ñoom xale la ñuy ci làmb ka ñu bëree dañuy bëree ka ñu ñàkk bëree dañuy bëree. jàpp ne ko. non amul loolu moom la rek. yaa ngi dégg mais li am mooy am na loo xamante ni bu fekkee da koo bëgg a tegg mais nekkul fii la koy teggee dafa dañ ko war a teg a plianam di ko neex pas booy dama koy diw dama koy diw léegi. loolu dafa leer bu yow na ko boo ngeen loolu la bu yow mu wut yenn adversaire yu mu bëreel. kaasu yi ngay. waaw kaasu diw. man maa la wax loolu. boo ngay waxal. Balla Gaye dégg. waaw lekk les ngay waxal. tabac bi ngay waxal bu jeexee rek na. cappaacol bi ngay waxal nii bu jeexee rek jeex na man bi naan bi sax léegi amatul dama ko koy diw. mais booy ñëw. xam nga nit balaa koy diw ah balaa koy diw fonde foog nga tëdd ci koom wala nga toog ci koom diw ko ko waaw loolu la sax léegi. Balla Gaye qualité yi ñuy wax ci a ngi ci. waaw yéen a ko gis mais gisuma qualité gaaw na mën na loolu yow rek ko gis ak ñeneen ñu ko gis mais boo gisul loolu boo gëm ne xale la day entraîné gëm na boppam Balla lu wax suñu ay mag wala suñu ay papa ñun waxagul ko kaar bi bu fekkee wax bi moo koy meroo dinañ ko wax. lan la wax sa papa parce que bu ñu non waxuma sama waay papa non waxuma sama papa. dama ne lu mu wax suñu ay mag depuis 2013 ngeen nekk ci làmb di ko gis mu wax ko suñu ay mag wax ko ay taay ay baabooy ci foo ci ree mais ci làmb quoi ñun waxaguñ ko waxaguñ ko kaar bi donc làmb la bu ñu waree waxante dañuy wax su waxee jox ma damay wax delloo ko. loolu la rek amul benn problème da nga jàpp ni waa Géeja waaye fayaguñu bor ba tey mais sa combat ak Lac de Guiers ñoom dañ jàpp ni que dafa feeñal ay fayu booy. waaw incha allah léegi fayu yooyu dañ ko exploité. amul ak ku ko neex rek ñoom waa Guèye waaye dañ koy exploité lamb la daal lamb la ñu ngi ci lamb ay xale lañu ñu ñu ngi góorgóorlu bu ñu bëree moom dañuy bëree bu ñu bëreewut ak ñoom dañuy continuer def suñu yoon mais le fait que mu toog le fait que mu toog wax jëmale ci Boy Niang man damay wax delloo ko loolu bu jaaxle. yaakaar lu mu jàmb rakam ñëw nga daan ko. moo tax manière rakam daan ko avec la manière. da nga jàpp loolu moom la de mais l'essentiel moom la de l'essentiel ñu bañ a guddal comprendre nga ay xale lañu. ñu ngi ci làmb moom am na droit bëre ku war neex ba champion la amul benn problème ñun aussi bu bëree ñun la ay xale la ñu ngi ci du góorgóorlu loolu la loolu la am ci lu ma ci wax maa ngi bëggee ñëpp di leen nuyu gis naa gars yoo xam ne ñu ngi ma doon woo comme ay wasaare xama waaw bu Dakar Actu sama ay frère ñoo ko moom ñoom daal di maa leen di bëggee bu baax di bëggee ñëpp waaw di wax ni bu jeexee rek jeex na waaw incha allah jaajëf jaajëf le géant de Bawol a ngi sargal si Matar Ba ci kaw ci kaw. mais lay la ñu ngi ci kaw maa Adama Tapha Tine ngi noonu ma nga noonu ndeysaan Tapha Tine Reug Reug dëkk na Tapha Tine Reug Reug dàq Tapha Tine dama topp dama Reug Reug dëkk na Tapha Tine Tapha Tine loo non non non non Tapha am na lu ko métti Tapha Tine am na lu ko métti Reug Reug dëkk na ko am na Adama xoolal Reug Reug fi mu taxaw Adama xoolal Reug Reug fi mu taxaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan ministre ko fi indi am na lu ko met ndeysaan